Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de la Pêche, de l'économie maritime, maa ngi lay nuyu directeur et collaborateur collaborateurs yi Andal, àndal le directeur du COSEC le directeur du port directrice de l'ANA et directeur du marché poisson nuyu aussi euh, sa ñi nga Andal, ne marché poisson ak le euh, département de Pikine nga xam ne mooy sama département maa ngi leen di nuyu. monsieur le ministre nous da nga ne dañoo bëgg le budget ministère de l'économie ah muy département bu am solo boo xam département bu bu ñu war xel la mais nag dama ci am ay plaidoyer le marché poisson marché central poisson de Pikine monsieur le ministre ma bëgg marché boobu di ñaan le ministre du budget mu chompal la ci ci budget bi yok ci yow tam lo meuna chompal wa marché poisson parce que marché poisson ñoy dem ak sen bop te sa loxo war na faa dugg bu baax ci sa ci sa ci sa budget ndax monsieur le ministre marché poisson ay nit ñu jambaré ñoo fa rawatina nak les femmes la fédération des femmes marieuses ma ngi len di defal mention spéciale di len euh, di len féliciter bu baax monsieur le ministre ku ne xam na ni marché bi limuy am recette ci lay fay ay salaire am mu doon salaire ay employé yu takku ci lay fay électricité am ci lay fay oom yow nag waa marché ba gërëm nañu la ndax nee nañu yaay ministère yaay ministre bi nga xam ne la nga fa def benn ministre mosu ko faa def ñoo ko wax nee nañ loolu dañu la ci gërëm waaye dañoo bëgg itam ñu dolli leen dolli bi mooy ñu ngi remercier bu baax et bu baax la DER délégation d'entrepreneuriat rapide jàppale na leen bu baax a baax a baax ci ay usine gisuñu glace boo xam ne 30 tonnes lay def ñaari 15 jàppale leen ci ay entrepôt yoo xam ne 15 ñaari quinze lay def ci tonne ñu ngi leen ciy gërëm yeexoon nañ koo ubbi nag waaye juboon nañ ci ubbi gi donc ministre de la ministre des finances du budget euh, may wax ne pourcentage bi DER jël ci loolu dafa xaw a takku ndax bu fekkee ne ñoom li ñu am. ci la ñuy liggéey ci la ñuy jàppale ci mini ci ci ci ci ci seen salaire boobu loolu ñu am recette yooyu ñu am ci la ñuy liggéey duñ ci mën a duñ ci mën a yaxanal duñ ci duñ ko mën a yaxanal yaxanal boo xam ne li ci deer di jël dafa ëpp ñu ñaan yow ministre des finances nga waxtaan ak waa deer ngir luñ leen ko gën a mën a oyofale ñu oyofal leen ko. monsieur le ministre may waxaat aussi le statut des agents ndax mag moo xam ne dafay xëy moo xam jigéen la moo xam góor la. di teel a xëy di guddee wàcc dëkk département Pikine baa mu xam fu mu dëkk ci environnement mais kooku jël dooleem yépp yemale ko ci marché bis ñëw mu retraité wala tey yàlla kenn xamul yàlla bu mu am nit def fa accident de travail wala mu def fa dara te bu boobaa du mujj fenn wala tey ñun di def fa erreur ba ñu dàq ko kon dañu lay ñaan monsieur le ministre nga marqué fa sa empreinte jàppale leen ñu seen statut des agents ñu changé ko ba def ci li nga xam ne moom la ñu seen nawle yeneen yi am monsieur le ministre comprendre nañu bi ñu lay budget bi biñu waxé né euh, euh, euh, li joggé ci recette marché bi na dem ville de Pikine comprendre ñu won mais biñu ñu comprendre et que lolu maa ngi interpeller sama collègue député yi dëkk département de Pikine recette bi recette marché poisson mënul dem mënul nekk département de Pikine li tax moy recette bi ñom ci la dund nit nag ci limuy dund mënu ko joxé ma ngi lay féliciter di féliciter ñi nga àndal di wax né monsieur le président de la république son excellence dafa bayyi xel pêche japp ko lool téye ko lool ak port yi mu andal di ci liggéey ndax bokk na ci ëllëg lu muy tiitaroo ci bis